ba mu dikkee fekk mu yor xisbu sayf xisbu sayf si Abdou Xaadir mu di ko jàng ba mu jàngee béykat daal di koy fab moom jox ko sëñ bi ne ko kii de sëriñ baax na ci yow lool da koo ara te di ko jëf ba dem daal di koy woy dégg nga euh, xam ne ci njëddeen la nga xam daanaka ci jëkk la waaye waaye bi mu ko defee bi mu ko defee bi mu ko woyee yokk na ci loo xam ne nekkul ci xes xisbu sayfi waaw laale ko ci ñaanalaale ci maam jaara ñaanalaale ci ay waajuram ñaanalaale ci jullit ñëpp loo xam ne xisbu fi moom boppam rek la ñaanal ak boppam la doon aar waaye baat boo gis ci xisbu sayfi boo gisoon wisar wa baat boo ci gis rek danga ko gis ci sindidi waaw fitnati wala waa wala xar ximan saraxin wala bar ximan saraxin wala kat yàlla ak yu demee noonu lu mu ci wax rek baat bu ne di andi na ko ci waaye nag yokk na ci yëf bopp mi yoo xam ne moo gën a rafet gën a ëpp njëriñ gën yaatu ci li nga xam ne moom la Cheikh Abdou Khadir mi ko doon taarif def daal di dikk euh, fop day euh, loolu mu sotti jox ko soxna si ne ko jëfandikoo bi te <laughs> moo gën ci yow <laughs> nga xam nga xam ne boobu la daal tàmbalee am euh, kii ci moom nag waaw xam ne kii daal mi ngi ci mbir dégg nga kon xam nga ko kon yàgg na kon ci jëkki la waaye xam nga ko kenn ko kii kenn ko ba waaw ba tey nit ñaa ngi koy jàng waaw te teewut nag euh, am na yum def gannaaw bi ay ah waaw waaw waaw damiral ko daañ to bi na xablal wusul lana ah. yàlla moom dafa ci yoo xam ne moom dafa du laaj nasaxal waaw waaw yi nga xam ne nag yi ñu nag mooy yi nga xam ne masalan tey yu mel ne te mu so soppat ko defaat ko beneen taarif boo xam ne bii moo ëpp gën a yaatu gën a leer te kii bu dee ci am daa yeeg kii itam wala ñaan yeeg cant mu def ko yi nga xam ne mooy gën a mat yi nga moo xam moo làmboo lu soo malayel yi nga xam ne moom mooy géej gi yooyu nga xam ne moom dégg naa ci sëñ Mor Soxna Diop mu yoroon béréb bu mag bi jamono yooyu boobu maag sama bàyyi naa ngi nekk ci tool yi ñuy wax nasrullahi fii ci penku ñu daa def bu àjjuma dikkee dañuy dikk Touba fanaan si bu ñu xëyee dem yandu foofa ca birab ba jàng ci suba kaamil suba bi ak bu bëccëg bi ak bu ngoon bu jant sooyee am na juróom-ñaari kaamil yu ñu fa war a wàccee yoo xam ne sëñ bi ko santaane woon bu yàgg jamono ñu nekkee ci Jolof ñu jàng ko fa euh, te booba jumaa ji xaddaguñ ko sax daa booba ay kan rek fi ne booba parce que mbirum saa fi soog a jógee bu bu ko defee bu bu ñu jàngee ci kaamil yi ba mat ñu ñu ñu ñu ñu ñu daal di fanaan ba si tey bu ñu xëyee daal di delluwaat ci suñu tool yi waaye bis bu ñu yendu see ajjuma ji foofu bu ñu toolee foofu ci barab mag bi di eh, te booba barab bi baragu dénki loon booba sëñ Mor Soxna Diop moo ko yoroon bam eh, ba buñ fa yendoo waxtaan ak sëñ Mor Soxna Diop ndax sëñ Mor Soxna dafa doonoon ci ñi sëñ bi sàlloo woon ñu nekkoon bëkk néeg yu taq yu ñu taqool yooyu nga xam ne fu muy fu muy yendu yëpp sëñ Mor Soxna Diop moom day nekk moom moo tax bi muy demit da ko bàyyi woon da ko dénkoon kër Tuubaa gu mag gi moo ko yoroon ngi fii Tuubaa juwaan ci këppe tey kër gi fi nekkoon nga xam ne ay téere ki bagage ak ki yëf ñoo fi nekkoon ki baraag kër googu moo ko yoroon nga xam ne lu lu bagage yu ñu indi Tuubaa rek teg ko ci loxoom moo tax bi sëñ bi dikkee Tuubaa it néeg bi nga xam ne moom lañ defoon néegu sëriñ bi tam nekkoon ci penku bépp gi bépp gi nga xam ne bi sëñ bi gis Tuubaa foofu lañ ko tegtaloon ne ko fa nga jullee woon yor yor ba nga jógee Daaru Salaam te muy garab gu amuti dëkk foofa fa barab ba ba mu àndeek buubu jaa rëbb bi ne ko man day fekk ñu ngi fanaan ci defe naa ci boori kondeer yi du fi sori ci benn dégg rek xamu dédd la xamu dégg naa foofu lañ fanaan ba ba setee mu xëy fekk da ko daa def di dem ci àll bi rek léeg-léeg ñu di ko jëli ba yàgg ñu boole ko buubu jaa muy ànd ak moom di di di ñëw ba bi ñu fi fanaanee nag ba dégg naa ba wax waxtu ba set fajar mu woo ko mu dikk mu bég lool ne ko man de li muy wër bu yàgg ba tey euh, war nañ ma ne fi ma jullee woon yoor yoor ci fi garab gi nga xam ne amuti dégg foofa la ndax xam nga ko mun ne ko waaw ah, xam naa ko de mu ne ko garab ga lu mu ne ko bépp la mu ne ko fu mu ne mu ne ko fu ñuy wax mbal àll bu ñu wax mbal fa ne waaw ba dëkk bi euh, mbal lañ koy wax mbal pël ak mbal euh, mu ne ko mën nga ma faa yóbbu mu ne ko waaw mu daal di ànd ak moom ba ci fii ci fii nga xam ne fi la birab digganteem ak ñeenti mètre wala ñett ci ci gannaawam di sës ci miiru miir ba féete sow foofu la bépp gi taxawoon da nga gannaaw bi ñu defee miir bi miir jumaa ji lañ ko soog a ji fii nga xam ne fi la soro bi nekk ak loora fi nekkoon moom itam gannaaw bi nga xam ne ñu ngi miir bi taxawoon ba ñu ba ñu bëgg a def euh, kii bi soroor bi waaw lañ ko soog a ji moom itam euh, fële sëñ Massamba daa yandoo ak dafay julli ak dafay yëpp yëpp ñu ngi ci biir jumaa ji bépp gi moom mi ngi nekkoon foofu jóg gi nag ci kanamam lu war toll ci ñetti mètre wala ñeent fi la néeg bi sëñ bi nekkoon ne néeg boobu nag baraag boobu bi sëñ bi di koy farañ ko kii moo taxoon sëñ Mor Soxna moo ko yoroon eh, bi fi nekkee ba ci eh, bi sëñ Mor Moussa bàyyi ko fi bàyyi ko rek la sëg a moom moom nag dañoo mas a nekk moom ak eh, sama baay ñuy waxtaan ci diwaani xasayid yi ñu ku nekk di ci wax kii maa ñu sëñ bi wax kii mu ne ko man day dégg naa ci sëriñ bi mu ne sama xasaayid yi nga xam ne moom laa def ci géej gi ak bi ma jógee ci géej gi nga xam ne boo koy seet xasida cant rek la doo ci gis mari ci ñaan dara doo gis itam mari ci jàmbat dara doo lépp lu nekk rek damay wax yàlla may na ma nangam yàlla defal na ma nangam ak cant rek lay doon euh, loolu yi moo gën a kawe euh, yi nga xam ne dañ ciy wax di wax may ma nangam ak defal ma nangam ak yu noonu ndax yooyu yëpp dana aajo fas ak tudd ci salaam yi kii nag aajowut fas aajowut tudd ci salaam yi boo waxee rek li li liñ ci lam lépp da ko am dégg nga daal ne ko nag ci ci lu gën a gàtt sax ko koo xam ne kii yor nga ko moom euh, xasida yi di maanaam diwaan bi nga xam ne mooy yooyu rek mu ne nuur daari nekk ak yi demee noonu ba mat diwaan nga nga def ko ci sa kër képp jàng ko defoo ko dara itam doon na xijaab waaw sëñ sëñ Sam Mor Soxna moo ko wax fii ci béréb mag bi wax ko sama baay mu dégg waaw ku taxawoon a moom la daa cee cee Jolof ak fu ne ci àdduna bi mu dikkee mu bàttali ko Touba ba sëñ bi dikkee it moom lañ féete béréb ba moo ko yoroon ba ci jamono yi fi Mourou bàyyi ko waaw